Sene Info International. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziara euh, te di leen wax dal leen ak jàmm yéen waa seen Info di am mbégte it ci ñëw gi nga xam ne ñëw ngeen ko fii euh, ci bis mu màgg bi euh, di wax ne dégg nga kër googu ñuy wax seen Info yal na yàlla yëkkati ko te yokk ko bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa nga xam ne moom léppam yàlla la woon subhaanahu wa taala mu bind téere boobu ñu koy wax yawaaxidul faraid fii nasmi asmaillahi alxusna nga xam ne naam da cay wax loo xam ne maanaam mboolem nit ñi bind nañ ci asmaullahi alxusna waaye moom nam ca bindee ak na mu ca waxee doo dox ba dajee ko bind loolu ci asmaullahi alxusna waaye it yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nag mu xaasal ko ci ci biir téere boobee waaye it bind ay téere yoo xam ne carrément da ngay gis ne maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la cay wax xam nga bokk na ci yi gën a yéeme ci bayit yooyu da ngay gis benn lafz boo xam ne da koy jël bind ci bayit mooy ba muy wax naan fa xaqqa xaqal xaqi wal xaqu xaquhu wala xaq fi xaq yaxiquka yi maanaam muy bayit bu yéeme boo xam ne bi mu ko waxee maanaam ki nga xam ne xamul mën naa yaakaar ne rek maanaam yàlla sax lay wax hmm? waaw fa xaqaqa dëgg xaqal xaq yi mooy dëgg-dëgg yi waaye wala xaqu dëgg kese xaquhu mooy dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye walaa xaq de dëgg fi xaq ci dëgg yi yaxiqu di gën a dëggoo wala di gën a yellee comme ah, euh, ka xaq yi comme dëgg yonent bi rasul sallallahu alayhi wa sallam waaye nag lay dëggal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay wax bam ne huwa saadiqul masduqu la abda mislahu huwa alxaatimul muxtaari min rusul rabbihi kon yonent bi boobu sallallahu alayhi wa boo xoolee kon moom la ñuy màggal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom maanaam mu amoon ci xaas moom ci yonent bi sallallahu alayhi wa dégg nga di wax it nag ci màggal yonent bi sallallahu alayhi sallam maanaam kooku lan la ciy am mu ne wa kullu man jadda lil mawluudi yaadimuhu fa fawduhu bin nabi gayra munkatimi kon guddi googu moom la ñuy màggal moom moo ñu jaral lépp te lam ci wax mooy ku góorgóorlu maanaam képp koo xam ne farlu na ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? képp koo xam ne góor góorgóorlu na ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa fawduhu bin nabi ghayr maanaam kooku texeem ci yonent bi nekkatul lu nëbb moo taxit nag bañ jàngee bayit boobu ba dégg ko xale yi dégg ko lool maanaam mu jaral leen kenn ku nekk jël li nga am yëpp maanaam ngir ngir juddu yonent bi sallallahu alayhi wa SeneInfo International